تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة seen kër yi nag lii woon voilà waaw kay nag waaw kay nag waaw yow Ndiaye. illah illah illallah Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan la. ah Cheikh. woote bi yàlla dégg nga. pardon pardon woote bi yàlla daal mais man lu ma gis nii lan la. nii nga nga ko gisee. nii la demee. ñii nag dañ doon dem maa leen fi woo. damaa xam ne fi réew mi tool ñu dangal ko comme dang nii normal romb fii du xuutar xuutare di dem man maa leen fi woo ne leen ñu dellu ci seen kër yi sol yu baax ndax weeru koor gi ñu ne ak feebar bi ndax fi heure bi tool moo tax ma woo leen weeru koor boobu nag waaw ku laay njëkk yéen dégg naa fi nekk fi ngi ne dagal déet déet te xam nga pour fa kuuf fa lañ nekk guddi yi ñu toll dajaloo bi la ñuy bañ dajaloo wuñu sax ak ñu sax maa leen fi woon ma di leen daal Eh, eh, yow fii sa morom la yow. li ñu wax tey nii. Ah? wax na dëgg kan la moo tax ñu dem mu ñuy kat. Eh, allez ajo. dégage. ajo. kii mu far moo tere. góor góor góor gi. rek leen ñàkk nga fayda ñàkk fayda ngeen. guddi gi ñu guddi yi ñu toll dañoo nekk ci jaaxle. dañoo sonn nag. ñu ngi wax télé yaa ngi wax rajo yaa ngi wax. billaay rek ma fekk ma nekk moo rek ma yeggale. feebar bi ëpp nañu loxo yéen da ngeen mën ay kilifa ngeen te lu ñuy bañ nag ñun a koy jiite yéen kilifa dajaloo bi la ñuy bañ. ah chef day euh, dogguma la sax yàlla bu la dee dox dangaa fekk juste rek may waxtaan ak ñun ci feebar di xamal ni feebar bi li muy bañ ndax te dëgg-dëgg ñun mag ñi nga xam si ñoo nekk ci réew mi ñu ñoo mën a defar dëkk bi ni ñu koy defaree mooy kenn ku ne sax njaboot nga dëkk say nopp ne dee leen toog seen kër yi di raxasu ba set jéem a sell. waaye ndax toog ngeen seen kër yi. damaa pour wax ko ñi ndax ñi dama leen def. toujours rek ma ñëwee rek fekk leen chez vous wax. toog leen seen i kër. reste reste toog leen seen i kër. eh pour lan. ngeen toog seen i kër mooy tax feebar bi wàññi te yéen ay kilifa yu ñàkk fay ngeen toog ci digg mbedd yi waxtaan toog xale ji dara wóoru ma ci léegi li ma war ak yéen li ma war ak yéen dinaa ko def ah. ëpp fa leen yéen ëpp naa billahi eh, <laughs> wallahi waaw ëpp naa def ëpp naa def de wuy ma xam nga Ndiaye foo eh, eh, eh, di Ndiaye Ndiaye wallaahi Ndiaye Ndiaye waay togal kuy laaj ay njëgu kuy laaj njëgu gura ñu wax tey nga am ay njëgu gura yéen daal yàq rek ngeen njëgu ak génn xaalis quoi ah ay yaay da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 صلي عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم